va Eva merci beaucoup euh, damay nuyu d' abord euh, Baba Ngaaka maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax euh, di nuyu Anta c'est bon di nuyu Anta di nuyu Big Mo di nuyu ñi nga xamante ne ñoo fi ci invité yi je préfère man jiital ci nga xamanteni ne moy baxaw ndax moy suñu kilifa danaka ci li nga xamanteni moy ci li ñu jëm.

ñu euh, ci bari ñi nga xamante ne teew nañ fii peut être xam nañ BD 360 ñii xam nañ du jour mais li nga xamante ne moom mooy liggéey bi BD 360 di def c' est une agence de com et d'événementiel fii basée au Sénégal nekk fii di dem di bay di organiser pas mal d'événements. événements yoo xamante ne xaw ma ndax mi ngi attracté nit ñi mais xam naa ne que BD 360 en train de faire

askan ñu gën a dimbali jigéen ne ñoom nekk ci prison yi parce que moom moo ñu moom moo ñu ci dem ba xam ne ñun ñii ay porteurs de voix dañ nekk fii Sénégal yoon ci war a dimbali ñi nga xamante ne caabi ñu leen di aidé si façon si parce que am na ñu xamante ne dañuy dugg kaso seen peine wala seen ñàkk doole mooy waral seen peine yu gudd ñu di leen di fàtte

damay ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy volet Dakar Inside Festival Dakar Inside Festival nag Anta wax na ko léegi dafa ëmb ay structure yoo xamante ne defe naa kenn ci nekk ci ñoom du cuune ci métier bi nga xamante ne ci la ñu boole suñu doole li naan booloo mooy doole Dakar Festival ñu ko ëmb undu muy troisième bi bi nga xam ne ni Anta wax dëgg yàlla Eva wax na ko léegi xaalisu aar moo ko ngeen waaye maîtriser li nga xamante ne moom mooy événementiel bokk na ci BD 360 jours ne ak mu àndal bokk na aussi ci ñi nga xamante ne moom mooy euh, SPAC agence yi muy Makhtar Ndiaye euh, defe naa ci bari ci yéen xamuñu ko parce que dafa bokk ci homme de l'ombre bi waaye muy nit koo xamante ne euh, mi ngi dëkk France waaye di liggéey bu baree bari ci li nga xamante ne moom mooy aar Kisma Diakité que kenn dootu ko présenté wax dëgg yàlla ndax nee naa Europe bu fekkee ni que.

dañ koy wax ci suñu biir groupe moom Anta elle fait maak moom ñoo yem on est les folles on fait jamais des choses à demi-mesure mu gàtt taay ak daju du foor la waaye man boo ci tëkkalee li nga xam ne moom mooy ñun day nekk nekk ndax teg seen tegi seen baxaw bu metti la teg ko pour benn fan dafa metti te defe naa logistique bi nga xamante ne nar nañ ko teg fii au mois de décembre 31 dinañ xam ne Sénégal wax dëgg yàlla maîtriser et que ñun doomu réew mi war nañu mën a doxal li nga xamante ne moom mooy suñu aada mënuñu ko def sans ñoom parce que tey dañu am ay doomu euh, ay xamante ne euh, nee naa ku ci mel ni Ngaaka Blindé euh, defe naa kenn dootu ko présenté nit la boo xamante ne spectacle boo bëggee mu neex boo bëggee sa spectacle am doole comme ni ñu koy waxee mënoo cee def mënoo ko def sans Baba waaw moom artiste la boo xamante ne nee naa. fii mu toog nii du li mu toog moo tax waaye defe naa moo yëngal game bi à chaque fois donc ci game bi nga xamante ne ñun dañoo yëngal ñun tamit waa Dakar Festival du Design euh, bokk na ci Amadeus bokk na ci Dia Guissé bokk na ci euh, moom Ngaaka Blindé ak pas mal d' artistes yoo xamante ne dañ gis parce que panel la bokk na ci am dinañ am ay beauty bi dinañ am ay. Euh, ouverture yu bari yoo xamante ne jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Sénégal dinañ mën a dinañ mën a dinañ mën a naka lañ koy waxatee sax dinañ mën a am loo xamante ne ci seen culture mu jariñ leen parce que tey kenn ku ci nekk ci ñoom da ngay jóg xëy benn woo benn bisu mën naa lii wala def naa lii mu orienté la vers ma Makura wala mu orienté la vers kenn te yow li nga xamante ne ñu lay orienté foofu xamoo exactement soo demee lan nga fay fekk xamoon naka nga koy defee donc dinañ indi ñi nga xamante ne ñoom mënuñoo am accès ci ñoom ñu toog jàkkaarloog ñoom muy biiti bii bi ak yeneen yu ci bari yoo xamante ne plus largement plus amplement ci biir euh, débat bi wala seen ay questions dinañ ci ndax defe naa bi moom euh, man ak li ñu tële woon defe naa def nañ ko man xam nga toog ci télé bi laaj àll soo koy tàkk daal loolu conférence bi dina xaw a xeex ak dégg ñu ne la

ñoom ñooy defar seen bopp yëpp dinañ leen former ci biir ci bari yoo xamante ne mooy sër voie yi ngeen gis ñuy ràbb bi lépp loo xamante ne ci biir dinañ ko jàng ci dañ leen koy defal foofu ci biir mais bu ñu leen ko defalee ba bu ñu génnee naka lañ def ak ñoom bu ñu nekkee foofu di ko def naka lañ ci gën a amee muy galerie bi nga xamante ne nan lañ leen ko tabaxal foofu dañ leen defal boo xamante ne su boobaa.

donc waxuñu pour wax nii nii nii nii rek donc euh, euh, dañu dañu bëgg carrément changer les choses en fait parce que artiste bu jógee Europe ñoom ñoo sa xaalis rek dem loolu defe naa ñu ñi nga xamante ne ñoo ko woon ñu ñoo leen mën a téye ci côté boobu la mu tombé ay nit ñu am ay xel yu rafet daje donc loolu jur ñi yëpp nga xamante ne mooy lu ñu war a defal ak mais loolu luy am la ak ci amee rek